di ñu toog leen noppal naa la la nga doon uti non seulement indi naa ko mais indi naa lu ko ëpp tey jii yàlla xam na ni tey bés bi war ko woon fekk wante dama ni loolu man si sama bopp may déplacé wu ñëw jël ko au no de populations de Tivaouane di ma ko Ablaye ni ko Ablaye waxee woon mais aussi remercier ko au nom de toute la population tivaouanoise li nga fi jot a def ci maternité bi ak matériel bii nga indi ah defe naa ni dina néew ay dispensaires yoo xamante ni am nañu lu mel nii ndaxte dëgg sant dafa nekk sous le coup de l'usure ndax tous les jours nit ñi dañ koy utiliser tous les jours dañ koy dañ koy soxla. machine boobu tey jii waa comité de santé bi xam naa ne ngi commencé di sourire un peu parce que source de revenu la parce que ñoom dañu am autonomie boo xam ne li fiy génn moom la ñuy jëlaat di ko machine bi au delà de yeneen matériels yi mën na leen permettre tey nous ñu souffler bu baax baax sur le plan sur le plan financier kon Ablaye au nom de toute la population tiawanoise, au nom du conseil municipal de Tivaouane nous vous disons grand merci. Li ñun ñi nga ko defal man de nga ko defal parce que nag hôpital bi ku ci dugal sa dërëm rek man nga ko defal ndax bu jaree ma jël budget bi ma état bi jox yépp pour def ko ci dama ko ciy def nga indi fi matériel boo xam ne moo tax moo xaayan ku dégg séeréer parce que bërki démb bi ñu jëlee 30 million injecté ko pour jënd appareil yi benn lañ ci am benn kese lañ ci am yow nga indi ci lu mat fukk ak lu topp non content de ça nga boole ci ay petit matériel yoo xam ne nii li docteur Sakho wax kuy faj te sa blouse setul ka ngay faj sax yàlla bu ca doxe dem kuy faj te amoo lu lay saytu sa yaram nga gis caméra lan moo nekk ci sa biir yaram yàlla bu sa fit dem ba nga dem donc anniwoo fi daray como li ñu fi dajale nag mooy poste de sant bi dafa am lu ñuy représenté suñu sant de santé bi comme ni mu ko waxee ñun dañoo juddoo fii yàlla def ñu ñu toog benn bis mbaali Camara ñëw seet ma Astou Mbacké ni ma ko ñu dañu ay difficulté si biir maternité bi mm, bi ma ñëwee mu wax ma li fi nekk problème bi njëkkoon am mooy amoon nañu ay problème toilette man ko loolu damay bàyyi ñëwal sama bi ma ñëw fi xool matériel wër ko bi ma ñëwee vraiment sama yaram dafa daw jigéen ñi tëdd jigéen nekk jigéen ñi wérul yi xool aussi toilettes yoo xam mënuñu si dem dama ne léegi ni ñu njëkk mooy réhabilité defaraat euh, toilettes yi buñ si jógee ñu carrelé maternité bi tey boo gisee matériel bi ñëw tey matériel bi mu fi egsee léegi ëpp na huit mois mais dañ doon xaar beneen conteneur bi ñëw yi nga xam ne tey lal yi nga xam moom nekk si maternité lañ bëgg génn lépp def si ay maternité yu moderne nga xam ne au ñi fi nekk di ñëw di accoucher dañu mën a nekk si jàmm benn benn euh, wala benn kii boo xam dina dina leen dina leen fi mën a a dal donc loolu moo waral ñu ñëw tey ji def remise symbolique comme ni ñu ko waxee bëgguñu fi sa ay xumb mais je pense que li doon bañ sax am na fi mais sant yàlla ñu wax mais ñi ngi wax daal waa maternité bi waa poste de sant centre de santé bi ñi ngi ak yéen fas ne ñi leen di déglu di leen taxawu aussi si lépp loo xam ne mën nañ ko apporter pour loo xam ne dina leen mën a mettre dans de bonnes conditions nga seen liggéey ñun pare nañ ko def ko donc loolu ñu ngi si tàllal suñu loxo waa Tivaouane ko def jàppale ñun ñun ngoo ko donc loolu si ñu ngi la koy wax di ko wax waa Tivaouane yëpp nag di profité si occasion bi comme ni ma ko waxee keroog si bi tàllaat suñu loxo ñëpp parce que li ñu ñu bëgg mooy politique développement politique sociale li ñu bëgg mooy liy jëmale Tivaouane kanam li ñu bëgg mooy liy jëmale département bi kanam li ñu bëgg mooy liy jëmale Mbour kanam donc loolu ñu ngi loxo nekk opposition ka nga nekk euh, euh, euh, pouvoir nekk ñuy tàllal suñu loxo pour lii jëmale Tivaouane kanam Tivaouane daal am na ay problème yoo xam ne tey suñu sañoon du ñu jéggaan dara feneen donc lu ñu sañoon lépp lu ñu bëgg bu dee si wàllu santé bu dee si wàllu sport lu ñu soxla rek dañ koy ñëw am ko fii doxal ko suñu bopp.